ñun nak, ce qu'on déplore waa diaspora ñoo lank ñoo bañ mooy liy nekk suñu ginnaaw war a tukki jaaxle am ay problème tay ci suba rek amna ben membre diaspora ño lank ño bañ bo xamné actuellement ni mi ngi hôpital parce que dafa war def dialyse té war nañu bi on n'a pas mal de malades yo xamné actuellement ni ñu ngi fi coincé on n'a pas mal de euh, des enfants yo xamné actuellement ni war nañu génn nous inski en Europe nous sommes actuellement ni ñu euh, difficulté l'autre fois avons nañ RFM Assane Samb le commercialiste am déclaration bu mu def te déclaration boobu la a c'est faux parce que déclaration dafa xamal ne Air Sénégal a ngi 1 1000 euros pourquoi donc la diaspora a t ñu donné 1 250 euros am ñu jëndee 1300 euros il a dit tout juste que il n'y a pas de rabatteur wa comment je peux comprendre si tu dis que Air Sénégal mi 1000 euros après nga ne ku jënd lu tegu feneen maanaam xaalis buñ ci teg demal ci ki jaay kon ça veut dire que y a un rabatteur derrière. billet est ngi à 655 000 nee nañ suba ku munta dem vol bi vol rek la am amul lenen mu ngi nii facture baa ngi nii à 655 700 nee nañ ku munul dem suba dootoo dem mu ngi amul ben choix beneen choix amoo un choix nañ te ñibbi rek lañ voilà on ne demande pas gratuitement quand même mais comme nous monsieur tout à l'heure nous faisons des billets accessible nous demandons des billets. parce que billet aller retour ça ne coûte pas 1000 euros aller retour donc même bu que dañ lay à aller retour ça ne doit pas dépenser dans les environs 400 000 aller retour parce que moi, j'avais un billet aller retour mais finalement je suis mujj perte ak euh, tab donc il y a Air Sénégal pour me donner pour nous mener a ak voilà, donc on est des milliers de Sénégalais, lui Dundolol. Donc nous lançons un appel d'al. Monsieur le Président Macky Sall. Jusqu'à présent, nous avons quelqu'un gratuitement, encore une fois. Ce que nous voulons, c'est un billet retour. Nous avons un retour. ñi nga xam ne aller simple lañ leen di jaay ñu jaay leen à un prix favorable c'est sans qu'on demande ñun waa diaspora ñoo lànk ñoo bañ ñun lii la ñuy laaj laaju ñu leneen li may wax Hassan Samba, buñu ñu fo ak ak ak diaspora bi na wax li nek c'est le commercial na wax li nek wax li nek téréwul nga moom nga nga tok ci place bi nga wara tok problème yi ñu amoon mooy suñu amé allé du am retour retour bi fay vide et puis distanciation yi ñu doon wax actuellement de ce que je sais au niveau de l'Italie distanciation yi jeex na bis ni kon problème amatul su fekkee da nga ne distanciation yi mo taxone nga yok biey yégal ko ak bo démé ale do am retour légui distanciation yi jeex so démé di nga am retour kon nag yaakaar naa ne béy war nañ ko mëna a actuellement et on demande solennellement à son excellence le président Macky Sall mu gestu la diaspora ce sont des gens honnêtes qui ont travaillé toute une vie pour le Sénégal de un député gisuñu kenn koo xam ne tey bokku nga ci diaspora daan toog ci antenne yi di yëkkati sa gémmiñ di wax ñëpp seey nañu diaspora bi nañ yeewu xam ne amuñu député amuñu des représentants que ça soit clair